Reubeuss TV la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. jógal taxawaay non jógal taxaw jógal jógal jógal jógal jógal jógal jógal jógal نانا ندخ ستحيا دا مكو خرم ولا دا مكو سوكر سما جاي من بورسي ناي سما مام خلال نيو لم لا نيو يور لم بو دوكي مارسيتي لن بو دمي سيري لاي جاي لما من جوف لا سانت خلال باري كو لم لا كو سوتي باسكو سينيغال اندك موم من كو اندك سينيغال اندنا سينيغال مو اندك بارتليمي جاز Sénégal moo ànd ak MDD Sénégal moo ànd ak Bougane Gueye Dany kon ñi fi toog nii ah respecté leen leen te xam ne ku ci nekk da nga bàyyi sa kër bàyyi sa doom bàyyi sa jabar bàyyi sa lépp di xeexal Sénégal ma bëgg bu ëllëgee bu ëllëgee fii nii damay dégg yenn nit ñi di naan feesul parce que xolu sénégalais yee fees te ku sa xol fees bu sa xol feesee génne la sa néeg du yomb. mais toujours dina am ñoo xamné dinañ la démal motax ñun ñoo leen mëna a ñun ñoo fi au Sénégal bu fi Ousmane rek taxawoon dafa melni Sénégal pour fi taxaw parce que moi, moi... Ousmane moy Ousmane moy merci beaucoup <laughs> Diop ko torturé jamono garde à président Macky Sall dañ koy wax ne lii dal Abdou Faye jamono jële passé ci commissariat central du ñu nangu mu dal Ndongo Diop ci kaso bu Diourbel na libéré Ndongo Diop ci lu mu gën a gaawee Ziguinchor am na yeneen ñeent di fa nekk mooy Demba Diédhiou Abdourahmane Diallo Mouhamed Mané Babacar Diagne Demba Diédhiou Abdourahmane jàlloo Mouhamed Mané Babacar Diagne Ndongo Diop jërë ngeen jëf mbokk ku jàpp juróom benn juróom juróomi doomu sénégalais nga tëj leen kaso dinga dégg kaj-kaj boo sàccee askan wi dinga dégg kaj-kaj boo kàccee askan wi di nga dégg kaj-kaj boo ne yàcc di nga dégg kat kat mbokk yi fii li ñu fi dajale mooy mbiru liberté mbiru droit de l'homme ci liberté am na liberté politique ñoom Ndongo Diop ak ñeent ñuy jàpp ci Ziguinchor ci cadre liberté politique la nañ leen libéré ci lu mu gën a gaawee waaye foog ñu yokk ci leneen dama ne Sénégal ay liberté provisoire yo xamné day durer 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans dafa wara bac dakk Fatima Mbeng bi fi nek mu ngi nek ci contrôle judiciaire contrôle judiciaire bo yu foog ñu wax ñu kañ lay jex Ousmane Sonko mu ngi nek ci contrôle judiciaire foog ñu wax ñu contrôle judiciaire boobu kañ lay jex Abbas Sall mu ngi nek ci liberté provisoire foog ñu wax ñu liberté provisoire boobu kañ lay jex Birame Souleye Diop mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu liberté provisoire boobu kañ lay jeex. mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu kañ lay jeex Assane Diouf mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu kañ lay jeex. Clédor Sène mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu kañ lay jeex Pape Malick Seck mu ngi ci liberté provisoire foog ñu wax ñu kañ lay jeex. ak ñeneen ñi nga xam ne maa ngi maa ngi leen di baalu. ak yow ak yow. ak ñeneen ñi nga xam ne maa ngi leen di baalu àq fàtte naa seen tur fook ñu xam kañ la liberté provisoire boobu di jeex. waaye itam Barthélémy Diaz mii toog fi depuis 2011 10 ans fukki at ñu koy topp ci benn dossier Assane Diouf foog ñu wax ñu kañ lay jeex mbokk yi loolu yëpp la ñu war a boole wax président Macky Sall dafa war a jeex. waratuñu toog seetaan ñuy noot Barthélemy Diaz saay bu waxee ñu convoqué ko tribunal waratuñu seetaan ñuy noot Assane Diouf saay bu waxee loo xam ne arrangé wul ñu yóbbu ko tribunal waruñu toog seetaan Guy Marius Sagna mu am ñetti liberté provisoire yu jeex yi élection locale yaa ngi ñëw waaye élection locale yii du bokk ak une élection locale bu am élection locale référendum le élection locale pour savoir si le peuple sénégalais est d'accord pour une troisième candidature de Macky Sall ou pas et donc nous allons mobiliser pour élection locale ndaxte élection locale yi Macky Sall dafa bëgg a am ay résultats yoo xam ne ci la nar a sukkandiku pour wax ne voilà le peuple sénégalais wax na ko ne mun na nekk candidat une troisième fois te loolu waruñu ko nangu tey waruñu ko nangu ëllëg. élection locale yi dañoo war a xam ne naam am na enjeu local waaye weesu na enjeu local enjeu national enjeu stratégique la.

droit de manifester droit de voter à ñoom Moi, il li ñu indi nous ñu libéré nous libérons Hassan Djouf, Assane Diouf Ousmane Sonko nous libérons Barthélémy Diaz nous libérons Abbas Fall à ñoom seen Vous tamit amna yenen droit de l'homme Amna yenen droit de l'homme les droits de l'homme économiques et sociaux jamono ñu toll sénégalais yi ñu ngi sàcc faut faut que ñu libéré seen jamono jii ñu toll nañu ñu di di ni ñu libéré leen donc bu ñuy wax libérer dañuy libérer naam suñu otage yi dañuy libérer naan ñi nga d'accord dañuy ne da di am contrôle judiciaire da ngeen di am itam lu ñuy liberté provisoire waaye dañoo war a également ceeb bi yokk na mu ngi sonn diw bi yokk na mu nous ngi souffrent suufam nous ngi sonn ñu ko amel payoor mu ngi sonn ñu ngi nangu forage am mu ngi sonn ñu arbitrairement mu les droits de l'homme économiques et sociaux nous dafa avoir en am place bu ce que ci suñu c'est le quotidien des citoyens sénégalais c'est le quotidien des citoyens sénégalais c'est a xaj y compris changement changement c'est dañ koy jàllale ci élection parce que c'est la démocratie C'est Makissal, Sall fas yéene wul organiser élection Sénégal tay nak dinañ xam est-ce que Macky Sall dina organiser élection wala do organiser élection te wax jooju nak dama né mbokk yi lumay wax dafa am solo Macky Sall na da ngeen di élection le 23 janvier 2022 lépp ay kàcc la ana ñu amoon carte électeur fi yëkëti len seen loxo waaw yen nak ngeen ñëw taxaw fi ñu leen yéen ay doomu Sénégal ngeen won tay yéen du ngeen bok fan la ko tek yéen loi bi mo ne Macky Sall lañ may dégg la loi électorale nee na at bu nekk mu am élection ak ñàkk am élection at bu nekk 1er février ba 31 juillet képp kuy doomu Sénégal nga bëgg bindu commission mairie bu nekk commune bu nekk da am commission ñaari at ñi nii Macky Sall lank bañ tek commission

Macky Sall nee du ngeen jot ci carte électeur yi parce que tant que amul commission foog ngeen dem ci commissariat de police té su ngeen fa demee dañ leen jox ay carte d'identité bind ci yéen bokku leen ci fichier bi loolu tamit mobilisation bi dina tax mu dak bu ci dess Macky Sall nee na 2022 bii fas organiser élection locale moy maire ak élection député moy législative mobilisation bi

D'accord, accord ngeen woon d' D'accord, leen d' accord ngeen 2024 présidentielle tu pars pas de présidentielle tu pars parce que démocratie bi sommes sa démocratie moo tax nga falu nekk président du Sénégal démocratie mooy tax keneen di fi falu fii fi président du Sénégal amul droit di ko xañ askanu Sénégal bugguma guddal wante dama ne suma baat ci kaw M2D ñu ngi di féliciter nous ngi encourager nous ngi leen di ñaax ngeen gën ci parce que dès une fois de plus les problèmes de ce pays ne seront pas réglés par les hommes politiques les problèmes de ce pays seront réglés par le peuple sénégalais Nous ngi leen di gërëm di le 23 juin Nous maa ngi ñaax M2D l'expérience manifestation dañ koy préparer on doit aller dans les marchés les gares à l'université, dans les grandes places, sensibiliser les Sénégalais, leur donner des flyers, leur demander de se mobiliser contre la cherté de la vie, contre l'agression de la démocratie, contre la liquidation des adversaires soi-disant politiques et surtout pour la libération de la démocratie sénégalaise, elle doit respirer. Et je terminerai le mot d'ordre. Il n'y a qu'un seul otage au Sénégal 2024, c'est il n'y a qu'un seul otage jusqu'en 2024 c'est comme simplement nous avons nañu ne fi mu objectif donc la ñu am sauver démocratie Sénégal sauver démocratie Sénégal taxaw ci fexe ba kàddu yi nga xam ne Barthélémy wax na Macky li

li ñu taxaw di xeex mooy kenn démocratie Sénégal et loolu yéen da ngeen ci am part de responsabilité c'est pas l'affaire des politiciens c'est l'affaire du peuple kon encore une fois jóg Bolélen boole leen seeni doole jàkkaarloo ak au moins à lu ko nit makisal, les waxal les Macky Sall lépp wax mat bëgg na mais danañ ko wan ne ko ñun ni peuple bi ñun ñiko fal ñun ñoko gëna taxaw ñoko upp ëpp doole parce que fi mu nekk ñun ñoko fa tek l'autre message l'autre message et j'en profite pour waxtan ci ak wa M2D Cheikh Tidiane yow xam nga rôle bima jouer ci lu taxawal M2D Ousmane Sonko dañu ko song bëgg ko neewal doole

il faut nous boire les Macky Sall ak Benno Bokk Yaka, il faut pas qu'on se voile la face rapport de force la ñu xam doole la xam li fi xewoon en 2017 ku nekk ci yéen mu ngi koy fàttaliku ay nit ñoo taxaw ngir seeni égo saaroo waa Benno continuer seen se faire Benno jël assemblée nationale donc il faut encore une fois ñu yi il faut qu'il y ait une synergie des efforts pour que nous mën fi jëlee ñii fi ne ci élection locale yi vous la jeunesse vous une ci part de responsabilité vous leen nangu ñu leen di def ay faire valoir leen il faut relever le défi de la participation des jeunes ci élections locales yi ñu jëm leen ci liste électorale Barthélemy, on en a discuté plusieurs fois. il faut que nous seul sa pour que nous gis kenn ku nous ci pour que nous donnions Ben, bu fekkee que nous fi jëlee waa Benno Bokk la dispersion la dispersion des forces de l'opposition encore une fois nous donne dooleel lois Benno Bokoyaka.

léegi nag bi ko desee mooy nee na ci lu bëri ci ay organe de presse heureusement qu'il y encore des organes et dignes mu dem wasaare ko ne seen mission mooy saa yu ngeen xëyee wax leen lu bon ci Ousmane Sonko waaye plus ñuy wax plus Ousmane Sonko di am bay ci Sénégal ndax loolu du fi guléet ñu ne loolu doyatul ñu ne loolu doyatul ñu ne léegi comme loolu doxul te ñu gis ni nag am na benn mbir moo xam ne nee nañ ku ñuy wax Mark Zuckerberg moo ko fi créé waaye dafa mel ni yàllaa ko andi rek muy xéewal nee na léegi booboo ko tere nelaw waay waay waay dama ne dama ne. nit fay am jom te di ku demb ndax la magie du et du clac du man mako créer fi du mako fi waxoon bi may opposant kon dama bëgg ñu wax ni yéen ñëpp laay waxal sama frère bugan wax na lu jëm ci lu ñuy dëgmalé élection yoyu M2D du plateforme politique M2D dafa di plateforme bo xamné dafa dajalé ay mouvement citoyen dajalé ay parti politique wayé li won objectif am dëgg mooy lépp lu jëm ci faagagal démocratie ak lepp lu jëm ci yorin gu ñaaw gu ñor réew mi ñu jëlé ko fi wayé acteur politique yi ñoom man am certitude ni ñi wara and nañu and ci élection législative yi euh, locale yi li ëpp solo ci ñi nekk ci opposition bu soobee kii bind am naa yaakaar ni dañu ànd te dinañ fi duma Macky Sall ak ñi mu àndal duma goo xam ne dañuy wax 2009 2009 du dara nañ ko teg fële man loolu laa gëm lu ñuy liggéey la nag waaye yéen ñi nga xam ne yéenay ndeyu mbili gi yéenay ndeyu mbili gi du ñun yéen a nekk ci terrain bi di def porte à porte nekk ci terrain bi di wax ak sénégalais yi lenn rek lañ leen di ñaan. na ngeen am confiance ci seen i leaders politique xam leen ñu sumb te ñu daj ci lu ne te ñu ñàkk ci lu ne duñ ko musa a tayle duñ ko mus a yàq duñ ci mus a def loo loo xam ne la loolu rek laa leen ñaan li ci des préparé wu leen fagaru leen parce que bu soobee yàlla Macky Sall wii di wii jaare est-ce que ñun ñëpp d'accord nañu 2024 kan moo sañ ne fii 2024 du fi am élection présidentielle te dàq élection teewul élection di moo tax ñun nañu nekk ci ñu nekk rek di liggéey nañu dànk fanaanal nañu daas fanaanal dañu waajal élection dina 2022 bi élection mënul ñàkk man de ma wax ko je suis député à l'Assemblée nationale

pour que l'Assemblée nationale bi nga xamné moy li li assemblée nationale pour que ñu raser ko nationale bo xamné de forte de l'opposition nous préparer le départ de Macky Sall en 2024 Li agenda bi nañu jublu ci lolu té divertir wayé dama leen bëgg wax ni leen ci Macky Sall bu dee safaan ba la bëgg dina ko fi fekk parce que moomuñu te ëpp ñu doole maa ngi leen ni gërëm di leen sant. Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen